bëre ñun moomu ñu ko ñun kenn rekese man balay suma xol di jeex ñu naan sport de chez nous nekkul suñu moomel depuis la nuit des temps depuis des temps immémoriaux depuis la Grèce antique bëre am na fu nekk mhm. asiatique am nañu bëri euh, Sénégal gi si wàllu boppam bul sore Balwaso moo fi mën moo moo moo mën a wax ne maa moom bëri bi ban waaso mooy moo dul bëre boo demee ci tukulóor yi ñu ngi bëre ñu ngi wax ci pré nga dem ci séeréer yi ñu ngi wax njom nga dem ci olof yi ñuy wax bëre ainsi de suite ainsi de suite mais kenn amul pour wax ne la bëre man maa ko moom man maa ko sàkk fii Sénégal Sénégal aussi amul droit ne bëre moom moo ko moom moom moo ko sàkk ci àdduna pour l'histoire lan moo indi bëre dóor bëre dóor lan moo ko indi Sénégal am na tubaab bu fi nekkoon boo xam ne bii moo yoroon film cinéma yu ñu doon wax Comasiko moo ko moomoon cinéma dañ daan dem cinéma léegi xam naa ni yéen xamatu leen luy cinéma. Mhm. dañ daan dem cinéma kii ko moomoon moo ne pour que lii pour que sax mu gën a attractif nañ ci boole coup de poing. ñu ngi fàttaliku combat bombardier ak Tapha Tine. Mhm. Tapha gaañ na ko gaañ bi metti booba d'accord am na doole. mais doole rek du xeex te la ne xeex la dañ lay jël Mariama ci cage dugal la ci jàpp sa jàpp sa adversaire ñëpp génn ñu ñu ñu ñu kàdd naa euh, cage bi ak bi rek des et il faut saluer le réflexe de l'arbitre parce que rapidement. oui il a il a il a réagi. il a réagi rapidement daal di arrêté combat bi. effectivement yëkkati euh, euh, boppam daal di au médecin yi. <laughs> heureusement. mais su xawoon am tuuti retard lu ko baax bu ko arrêté wul kenn amul droit arrêté ko. Mhm. bu fa jëlaatoon ñaari coups wala ñetti coups lan mooy arrivé. bu fekkee ne tey fi mu nekk nii da nga war a dem bëri. Mhm. bëri amul benn critère pour nekk mbër. Mm-hmm. amal doole dañu fekk dañ daw ci booru géej gi dem bëri ji. Mm-hmm. c'est tout c'est tout. boo mënee def ay Dakar Kédougou à gauche à c'est tant mieux. d'accord. mais boo seetloo combat bi ñi nga xam ne bii am nañu notion laa wax. Mm-hmm. xam nga euh, Mariama bu ma li may wax nag ci internet lay wax dana ci am ñu réagir. dëgg la wax loo xam ne nii mais man li may wax ah, je le dis en âme conscience. oui. du du itam euh, bu ko glorifié wu. Mhm. mais c'est parce que wax dëgg yàlla je le dis à qui veut l'entendre les arts c'est chez moi. je sais ce que c'est. Mhm. quand j'en parle je suis dans mon jardin. Ouais. quiconque boo xam ne bii li déglu li may bu ko contredire parce que face à face qu'on discute et je suis sûr et certain que personne ne le fera parce que. ku ci nekk ak la nga xam ne bii loolu nga xam loolu la lay yàlla séddee. Mhm. loolu la yàlla séddee. Mhm. man daal su fekkee ne mën nañu dem jàngi. Mhm. pour terminer euh, am de bonnes techniques. surtout de percussion. surtout. que ça soit le coup de poing le coup de coude chez les pratiquants de Muay Thai. les coups de genou. coup de loxo ci làmb. coup de coude amul ci làmb. dóor fii amul ci làmb te loolu yëpp c'est permis en MMA mix martial arts ok art martial art martial yu bëri ñu ñu mixé donc buñ ko mënulee bañ a def mënuñ ko bañ a def par la grâce de Dieu vraiment maa ngi leen di ñaan yéen suma mbokk bëri ngeen góorgóorlu dem euh, jàng ji technique de percussion yooyu mm, avant ji dugg technique de coup de pied Mariama euh, xoolal les pratiquants de du mhm. il t'immobilise le coude boo moytuwulee ñu damm ko bu jiixee ñu damm ko. Mhm. il t'immobilise la jambe boo jiixee boo moytuwulee ñu damm mhm. donc yooyu yëpp ci ci technique gu MMA la bokk l' essentiel c' est de détruire son adversaire. d' loolu.